Thank <laughs> you. Toujours dans votre acte du jour de ce 25 avril 2024 sur la chaîne des grands événements VIP People TV suñ jógee foofu la ñuy dem seeti ji kii nga benn contribution bii nga xamante ni kii di Diatou Cissé def na ci beneen journaliste bi nga xamante dafa ci parti Pastef muy Serigne Saliou Gueye di un chroniqueur nekkoon foofu ci Sen TV ba noppi nekk directeur de publication journal Yoor-Yoor bi nga xamante ni Pastef moo ko moom lan la tuddee Serigne Gueye Serigne Gueye ou la complainte de l'un des l'indécence en tout cas kiko ko di ki nga xamanteni moy jatu Diatou Cissé Diatou Cissé xamal na depuis que atu année 2000 dañu gissone ni que li nga xamanteni moy il est midi bu njóogu sec en 2024 ñu trouvé wu ci li nga xamanteni moy yor yor bi nga xamanteni moy mooy Pastef moko mom suñu sukkandikoo ci année 2000 yi nga xamanteni ni sec waa da utiliser li nga xamanteni moy mooy journalam bobu nga xamanteni kiko ki ko financé du ken ay responsable parti démocratique sénégalaise donc ki nga xamanteni moy mooy Macky Sall souvent li nga xamanteni mooy dessus jaarle ko ci ben ceinture bo xamanteni lepp lo xamanteni nit ku meuna trouver lepp lo xamanteni ay ligne de mur la jëmele ko ci ki nga xamanteni moy le président Wade si la commencé won par ki nga xamanteni moy Idrissa Seck dernière année yooyu nga xamanteni gis nañ ko ki di Serigne Saliou Gueye dafa defaat li nga xamanteni moy la caisse dal di indi ben résonance jëmele ko ci parti bi di Pastef bu Ousmane Sonko. ba noppi moom ci boppam Serigne Saliou Gueye mu doon guru Ousmane Sonko ba noppi daal di mettre lépp loo xamante ne ay sujet la yu mënoon sukkandiku daal di gêner ñi nga xamante ne mooy bailleurs yi nekk di calomnier di yàq deru ñi nga xamante ne ay honnêtes citoyens lañu ginnaaw bi nga xamante ne bépp malheur boo xamante ne porté ko jëmale ko ci opinion bi contraire ak lépp loo xamante ni nga xamante mooy maître am dafa doon ubbi ay colonne jëmale ko ci feuille ni mooy état yi nga xamante ni ñoom ñoo tuddee woon seen bopp patriote alors que luñ doon affiché révélation ak li nga manifestation jëmele ko ci carence bi nga xamanteni plus luy machel bi grand renfort jëmele ko ci pes domni bi nga xamanteni suñu jamais musul doon li nga xamanteni tribune politique mais du nom aussi d'un journaliste bo xamanteni juste et vrai du samay kaddu wax ci nga même rôle bi nga avons joué sur le mi ko journal Bobo Il midi ñu ko 2000 xamone nañu journalu Ndiogou Il est midi dara di di calomnier régime uniquement pour euh, accéder au pouvoir je crois que même position le par rapport au journal yor-yor bi nga plateau n'importe quelle sorte d'attaque la def ay ak Diégui Diop tu vois une autre personne que un journaliste Bo il est assermenté qui respecte l'éthique et la déontologie tu voyais un vrai partisan politique ou bien un vrai politicien déguisé. en 2012. Qui di ancien directeur de publication il est midi d'un yoga Wack Seck dañ ko ci poste PCA de la RCS. pour service rendu lit. bi nga xamante ni décence bi nga xamante ni moo ëppoon daal di li nga public Dali enfermer, di enfermé wu jëm ci li nga xamante ni mooy seen part partaaral jëmale ko ci mandat bi nga ex président Mais ce n'est mais suñu du ci élection bi nga xamante ni Bassirou Diomaye Fay, ak à nga xamante ni ay nomination sukkandiku ci bi nga xamante ni le président jël ci poste li nga mon premier ministre du gis dara Ludul Khar xaar kii nga xamante ni mooy Serigne siégé ci biir loolu nag ñu ngi xamal daal lépp loo xamante ne tey doon na indécence bi nga xamante ne dafay trimbale dina doon fièrement ci kanamul ñi nga xamante ne mooy caméra yi ginnaaw bi nga xamante ni quitté nañu lépp loo xamante ni doon na arrivé ñenn ci ay compromis jaarale ko ci ay retour d'investissement ba noppi am yaakaar jëmale ko ci benn point boo xamante ni mën nañ ko user jëmale ko ci ay ville méthode yoo xamante ni de chantage la ba noppi daal di sase pour que ñu mën a pomper l'air li ma ci mën a indi mooy benn colère boo xamante ni mooy mer ba fut boo xamante ni dafa ñëw tey daal di sukkandiku jëmale ko ci invité yi nga xamante ni ñoo bokkoon ci de prestation de serment bi ci bir loolu nak ginnaw l'eau mom éjecté sur la table et maintenir xamanteni grand bandit le ba nopi dal di wax ni que ki di Idrissa Seck ci ben fameux CD lu mu xamle won dal mom du discuter du partager li nga xamanteni moy butin mom Serigne Saliou Gueye dafa don ben nit bo xamanteni suffisamment petit à petit lepp lo xamanteni meun nako am ci retenu ci kanamu ñi nga xamanteni moy rendez-vous fatidique jëmele ko ci walu fatou ba noppi sukkandiku ci ben suite jarle ko ci disparition bi nga xamanteni moy Ousmane Tanor ginnaw bi nga xamanteni ay rew yu bare dal di nañuy observer li nga xamanteni moy mooy pour li nga xamanteni moy le haut serviteur de l'État mom Serigne Saliou Gueye dafa rompre li nga xamanteni moy mooy civilité am bi nga xamanteni en tant que sénégalais dafa attaqué won ak violence jëmale ko ci li nga xamanteni moy mooy ignominie bi nga xamanteni amul benn commune mesure jëmale ko ci défunt ancien ministre d'État bi nga xamanteni moy Ousmane Tanor avant que même celui-ci soit avant ñukoy koy euh, yóbbu euh, manam diko ko ci bamélam depuis bëss bobu nak li di incarnation jëmele ko ci ay bêtises jëmele ko ci méchanceté manam Moy soxor ak xol bi nga xamante amul dara lu muy épargner jëmele ko ci porteur mom Serigne Saliou Gueye fa représenter ci kanamu sénégalais li nga moy ben mercenaire jëmele ko ci exécution bi nga xamante ni ben commande la jëmele ko ci ay maître patriote ginnaw bi nga xamante lepp luy zel avec Nini Nini, ñi dafa fay li nga xamante moy ben lance pierre jëmele ko propager li nga xamante manam moy le mal ginnaw bi nga xamante ñepp ño ne ngi dund jëmale ko ci benn statut bu Ibra lépp loo xamante ni sukkandiku nañ ko ci talent pour mën a fay lii nga xamante ni mooy auteuru leader yi nga xamante ni mooy tâche yu mu doon joué ba tey kii di Diatou Cissé mi ngi xamal lépp luy bàyyi jëmale ko ci ay maître yoo xamante ni dañuy achever benn jour quiconque mën na fay lépp loo xamante ni maanaam mal la lu métti loo xamante ni defoon na ko kii nga xamante ni mooy moromam li olof Njaay di wax rek lépp loo lebal sa morom ci lu baax lu baax lañ la koy fay lépp loo lebal sa morom ci lu bon dinañ la ko fay kon Serigne Saliou Lubon, bon na jàpp ko suñ ko ko fayé bu mu mer bi confiance jëmele ko ci ay jour passation de serment bi bañ ko joxul accréditation dafa tok ci plateau yu commencé attaqué qui nga de communication Bassirou jomay pour que ñu dégg en tout cas tay doon na li nga xamanteni mën nañ ko valoir jëmele ko ci li nga xamanteni tay kenn mënu ci sukkandiku pour am benn besoin jëmele ko ci ay passeport wala yeneen journaliste en tout cas kii di jatu Cissé moom la xamale daal ci kii nga xamanteni ni maanaam mooy Serigne Saliou Gueye jatu Cissé Ngom nag di sociologue nekk foofa ca Paris email am di jatu tiré ngom arrobas hotmail point com muy contribution boo xamante ni def na ko daal di koy lippee kii nga xamante ni mooy Serigne Saliou Gueye lan la ko tuddee maanaam la complainte ou l'indécence en tout cas Sénégal sénégalais ñom ñoy ñooy jugé Pape Alé recasé nañ ko jox nañ ko walam ci carte bi kon bu mu bett ken ëlëg ak ci bir aussi ñu gis ki nga xamanteni moy Serigne Saliou Gueye ñu fay ko li nga xamanteni moy param sur euh, du gâteau kon donc ñun lañ doon wax dembu di naan Serigne Saliou Gueye Pape Alé ak yenn journalistes ce sont des journalistes du Pastef demone nañu ba ñeneen ka fa ay presse yo xamanteni presse Pastef la ñoleen doon manipuler je crois que les résultats commencent à tomber ñun suñu wax lu waxum magon nako ko lu xamoon naa ko nañ ko la parce que newon nañ na leen ñii di ray seen bop yeb manam dañ leen dig ay poste ñi ay psa ñi ay directeur ñi ay chargé de mission ñi ay chargé de communication donc lolo taxone ñuy xex ñun nak bañuy xex xeex ñu lu ñoo nag Macky Sall xeexu lu Massamba kan lañ doon xexal la vérité te à ko moom muy askanu Sénégal deug bobu ñu doon ni la raison kuy patriote ni war nga ubbi sa euh, donc ñu daan journaliste pouvoir je crois que tay ñi journaliste opposition ñom Nous, jël def pouvoir donc n'a été jamais un journaliste du pouvoir <laughs>